Ngagnan, située au quartier Médinatoul, est une véritable bombe écologique. Le paysage est pollué. Cette zone, il y a de cela plus de 30 ans, représentant une véritable aubaine pour les populations du Bawel, avec sa nature abondante de l'époque. Mais depuis la période de sécheresse, l'espace est devenu un dépotoir d'ordures et l'insécurité triomphe dans la zone. Les populations riveraines sonnent l'alarme. fii tey ñu nekk tey mu mel nii. ñu ciy jéem pexe. ay fanweeri ci gannaaw. na garabu lu ne amoon na fi léegi nag dem nañ ba loola dañ fi ñu mu lii fi sax tey jëriñu nu dara ndax fi la sunu njaboot mënatuñoo dem mënatuñoo dikk. ñun waa njaareem sonn nan ñun waa njaareem am nan metit woo xamante ni bii ci sunu fii basin lan nu fi defal lépp a ngi ci biir sunu mbokk yi sunu xale yi dañuy tiit sax ñu wàcc mbartal nii. lii moom yàgg nañ ko tawat lool ndax ñun la yàlla natoo ñu dëkkee fii ci tës ci mbalit ñi bu nawet jotee ñu sonn ah ndax lu ne leen fiy tuub Ainsi, pour lutter contre l'insécurité et l'insalubrité qui prévaut à Khourangagnane, des jeunes et des femmes se sont regroupés autour d'une association pour aménager et nettoyer la zone. suñu mébét fii ci xur yi mooy insécurité bu doy waar daf fee am insécurité boobu fi am nag waral na àndandoo ko ak saxyaay bi nga xamante ne ni actuellement nii moom nga fiy gis toll woon na ci dayo foo xamante ne àndandoo ak ñoom dëkk bi daf doon xaw a jafe lool. au-delà des actions de l'État, l'engagement citoyen est convoqué pour lutter contre l'insalubrité qui prévaut à Khourou Ngagnane. ci dëkk bu ñu mun di nekk état ba fa nekkal askan wi dana def kéemtulaay kantanam ci satisfaire askanam. waaye li nga xamante ne nii tamit moom moo mën a jàppale askan wi toujours mooy li nga xamante ne nii moom la askan wi di jëngul seen bopp dimbale ci président bi ci liggéeyam ndax dana tax dëkk boobu mu jiite mu mën a jëm ci kanam. Pour venir en aide aux populations riveraines, le ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, avait pris l'engagement lors de la journée de lancement de Setal Sunu Réew de faire du site de Khouroum Gagnan l'une de ses principales priorités.